mbooloom ñi gëm yeesu saa yu ngeen déggee jololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nañu bamtu nettali bi weesu benn ñan ñooy taalibe kirist taalibe yéesu yi ñooy ñi xam ne bàkkaarkat lañu te mënuñu def lenn ngir musal seen bopp nangu nañu saraxu yéesu ca bant ba muy seen peyu bàkkaar ñaar lan la diina yi di jéem a tëral diiney àddina dañuy tëral ay santaane ngir jéem a neex yàlla su nit ki toppee santaane mu ngi yaakaar ne yàlla dina ko baal ay bàkkaaram ci yërmandeem ñett lu tax ñuy woowe taalibe yeesu doomi yàlla ñu ngi leen di woowe doomi yàlla ndaxte amaat nañu kóllëre ak yàlla dañu judduwaat bi xel mu sell mi duggee ci seen xol ñeent yéesu rekk mooy ràmmkatu nit fa yàlla amul benn sëriñ ci àddina bu bàkkaarul kon ab sëriñ mënul taxaw fa kanam yàlla ngir ràmmu bàkkaarkat yi yéesu mi amul bàkkaar mu ngi toog fa ndeyjooral yàlla di ràmmul ay taalibeem juróom lan la taalibe yeesu war di def war nay ñaan woor saraxe bokk ci ndaje yi ngir màggal yàlla ak di may fit ñeneen ñi naka la nit ki mënee mucc war na nangu ne bàkkaarkat la nangu ne deewu yeesu fey na ay bakkaram su ko defee dina mucc ndaxte fees na ay bakkaram